My Chef remercie ses partenaires. Yes! Yanji Eve Sénégal, la marque des grands hommes. 77 651 78 47. Noula de couture, la mode de tous les temps. 77 726 69 57. agence immobilière Kër Yaay Fatou Imo ñoo leen indil terrain yu mucc ayib 78 440 49 02 agence immobilière Kër Yaay Fatou Imo ndimbal jaboot laa ko tuddee. waaw ak produit Jaouda rek du jug ci duñu bégal moom la ñu taamu fépp ci àdduna bi. noon la moom lay nam man dama tiita tiit man tiit naa ci min réew waaroo ëppale mbaa raw kenn fi moom jóg naa dem ci sëriñ ngir yàq gas naa baa musul fàtte yàlla yàlla buy taw ngay fo beere saa doole moo jeex noppi na ba pare yëngal si <laughs> da mën nelaw rek xaar boo ko waaw waaw man waaw damay bëgg a tiit wala lii gémmiñam la lii gémmiñ la wala maa ko waa pop pop pop pop gim gaa ngi mel na comme poosu saak xoolal yi xeetu bakkat yow amu problème oxygène moom amu problème laa ilaha illallah bakkan yoo xam ne comme mbooloo yow rek yaa mën a nekk dama ko doon def

tata sa reer bi neex na de. non tey moom vraiment. macha allah. lenn rek ngay def erreur. Hmm. nee naa la chaque jour booy def mise en place da ngay teg ndox. man daal sa professionnalisme ba léegi daal moom moom xaw na maa jaaxal. man data professionnel de quatrième catégorie la. <laughs> maanaam man diplôme d'état laa am. Hmm. mais sama défi ak sama kontaan moom ma yóbbee leen nii tey. tey journée la boo xamante ne bii ne damaa belli xam nga man su ma nekkee ci jàmm.

muy bànneex ah. muy naqar dafa war man ñi kilifa ñu ànd dem seeti ko si si xamal loolu day am ci famille boo mën di gis mais ñun suñ famille dafa nekk famille bu doy waar famille bu doy waar laa bokk parce que ñun famille bu ñu bokk mooy bu fekkante ne bii ne dañoo am boobu moom dañuy soxla nit ñëpp ñëw ñu ko ak ñoom ñun dëj dañ koy partagé mais bu fekkante ne bii nag dañoo am ku feebar wala yooyu du ñu nangu ku fa ñëw di ko seet ndax attan ngeen a ñëw seeti ko ngeen di ñibbi ruubi toppal leen te su boobaa day ñaaw li leen di jiñ lu doy waar xam naa li ma leen. mais nañ bàyyi mais en tout hmm. de. kontaan nga. ak ma sëggaloon nga. naa la ko. <laughs> kenn du ngi ci loxo bi. kon tey joomal naa la. waaw dégg hmm. dégg joomal nga ñu. Hmm. dégg ko continuer nii dégg nga. pour loolu nag euh, j'aimerais bien que nag tey ma dem xooli portier mene boko pour mu ñew ñu reerandoo man ak moom dama len koy ñaan xawma ndax mën na nek wala mënul nekk. mënu bay ki ngay woy portier portier tour la. bi mu ñëwee fii ba leg mom présenté mo tour man dam présenté mo sama tour non mais mënu len dëkk ci kër gi di liggéey do yeen ñaar mhm. te mu do ko wax touram do wax sa tour yi tamit. bàyyeeku leen sen lool ba leg non man dama jotté ak mom moko mais dama xamné mom duma du ci tour ya ngi commencé lu rafet. boko woy portier da ngeen jotté dama nga woo ko mu ñew et puis dafa rafet. non lool mom ci man la man ma baax parce que man damay bëgg lepp lu ma am man diko partager ak mom mais kii dafa nekk góor boo xamante ne moomu làmmiñam day nettali tout le yow yaa ngi gis chaque jour day ñëw bu ginnaaw soit mu ñëw nettali. Zahra bi nga tuddee bi boobu <laughs> la bëgg a wax. Eh, yeewul yow. kairer dong lalai deh Kalau doa, kalau doa, kalau respire. Tom et Jerry laa leen tuddee. Eh, mun naa laaj question. dina ma ko même benn bi xam nga nit bu defee lu rafet des koy wax. bu sañsee lu rafet des koy wax. mais tonton li ma bëgg a laaj mooy tonton kan moo la ndel tonton li lii ci ndel moom lu mu doon ba pare li ma ci gën a neex mooy ndelu 32 a la la ki ndel. Gitu, eh, tondo kide gede deh. Kide lade. Man dama bëgg ki. Bu. Sandal neex na No, me final finalement dina nyep. ñëpp. 32 sih Mais ki fa la Wala man fantôme mama wo wala man dama jomi wala man dañ ma bes ma togon. Fi kër gi waratul. Mais ki fa la wara jaar? buntu bi ma itu buntu man sama boobu dama nelaw ba këmax respire respire respire respire damaa xam ni kii. si ma jëm moom dina. 64 bi de dina garaaw kon 64 giga. lu mu dëgg rax ci përëm. waaw kii kii yëpp na la def waaw. Où est-ce que je suis. waa papa papa papa oh eh, my eh, god. Eh, lan la. Où est-ce que je suis. in this house making magosta. Que francophone, maximum anglophone. Nama ya kar man ki mori la nek wala fa la nek ni. Tono. Oui. Tu peux me toucher s'il vous plaît? Lalma lalma lalma rek xam naa li ma wax lalma. Lu xew toucher ko ma. Ñoppati ma ñoppati ma. Tunti bi. Do damay dóor magum ñoppati pour xol ki ki lu ko dal. Sama sama sama sama ven yaangi coulé Dara coulé Ah! Kommer det Simon? Kizara la No no, du mom de yow mom da nga jek da nga bon Buñu da dajee ci woon yow man xiyam man la sauvé ma da ngay bañ parce que ku bon nga Ki gala. ma ki gala. la yow la moy ki gala. yow la xar man la patas mbay. patas mbay. patas mbay, patas mbay. kan may patas mbay. man damay bëgg dé wala man tornade dama ne ci tornade wala man lan moo dal Ilan la kay sa passe pardon amala la graw mais xam lo bëgg dara nga jël li nga xamanté da mom moy kayitu kër nga jox mako plan bi jox mako fi sama loxo eh lan la qu'est-ce qui se passe pardon fi wëratul mais lan la fi nga gis ni kër gi fu toll ni wëratul damay tëdd ba wala ma ba ay rabu ñew sama kanam ay pitax ayu kenn xamul ay sa noir waaw doo expliquer tamit xam nga booy wax te xamuñu li ngay wax kenn mun laa jàppale lan la. j'ai tellement peur. ma jox ma ne sax yaay cokkeer bi yaay rab beeg yaay jinne ji yow mii la. dama wax ay waxu plan kër ak ay waxu tur tamit wax lañ ko dëgg. mais non finalement moom la wax tamit. excuse patron je que maa ngi étouffé et puis respirer wu ma merci. waaw ak produit Jaouda rek du jug ci duñu bégal moom lañu taamu ci àdduna bi. agence immobilière Kër Yaay Fatou Imo ñoo leen terrain yu mucc 78 440 49 02 agence immobilière Kër Yaay Fatou Imo nimble jaboot La ko tudde My Chef remercie ses partenaires Yes Yanji Eve Sénégal la marque des grands hommes 77 651